ñu dajee woon tey ak taskatu xibaar yi ngir présenter leen bi le rapport mu doon liggéey bu am solo bi ñu jot a def ngir dellu si si lépp lu jëm ci wàllum xeex cigarette ci réew mi. donc rapport bi balaa ñu koy lancé dafa am benn rapport au niveau africain bu ñu lancé donc fële ca Lomé donc muy classé ñi nga xamante ni ñoom ñooy pays donc Sénégal nekk à la dixième position ah donc muy euh, comment dirais-je euh, euh score boo xamante ni c'est moyen c'est acceptable ah, mais. Euh, c'est parce que dafa am ay yu ñu fi def jéego yu ñu fi def mooy loi anti tabac dafa tere vraiment toute forme d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. naam sax ñoo ngi def li ñu mën ngir weñ loxo nguur gi ci mbir mi mu mel ni ba léegi des na ndax suñu sukkandikoo ci secrétaire bi. politiciens yi ñooy gën a dooleel industrie cigarette yi ci réew mi. boo xoolee rapport bi nga gis ni saa yu ñu jëlee décision pour appliquer dara industrie tabac day bind courrier te xam nga industrie buy bind du bind ay ñu ñu ndaw industrie ay président lay bind ay ministre ak yu demee noonu pour que vraiment ñuy retarder processus donc yooyu. mooy ay tactique yi nga xamante ni industrie da koy faral di def dans nos pays. ñoom nag xamle nañ ni dinañ wéyal sensibilisation bi jëmale ko ci ndaw ñi. en tant que LISTAB suñu rôle mooy vraiment di sensibiliser di def plaidoyer sensibilisation bi nag ñu ngi ko jaglee ñi nga xamante ni ñoom ñooy xale yi boo xoolee nouveau produit tabac émergent yi xale yi ñoo koy tux moo tax suñu ay sensibilisation ñu ngi koy def ci école yi du demee noonu donc vendredi bi Kennedy moom mooy mooy recevoir l' ensemble des gouvernements scolaires de Dakar pour ñu defal leen sensibilisation. xamle na ni du bàyyi bi xeex naam sax du doon lu yomb ci ñoom wante am yaakaar ni bis dina ñëw li jëm ci wàllum cigarette dina wàññeeku lool ci Sénégal